dara bismillah doxu ñaxtu ba de ko autorisé ne sur quotidien ne marche bi nga xam ne nag maanaam dinañ ko amal tey day ngir xeex courant bi nga xam ne ko dañu ko yokk waaye tamit gii mari sagna ñu génne ko ca kaso ba waaw waa ñoo lànk day daal dinañuy tuxal na kon marche ba daal dinañ ko yóbbu nag ci avenue Cheikh Anta Diop gale Ndakaaru njaay jël Diop réew mi quotidien ne marche nga xam ne nag maanaam danañu ko amal tey day waaw ca université Cheikh Anta Diop gu Ndakaaru googa lay dooree lay Fadel Baro ak ñi na mi le jàmbaar ñu daal di koy génnee ne ko ci kaso bi le Fadel Barro yamu ca ndaxte nee na gis nga teg loxo bi nga xam ne kon maanaam teg nañ ko loxo Guy Marius Sagna mi le ñetti nit la ñoo nekk ca ginnaaw arrestation ba maar day taali ma ne la ñoo ko orchestré ku njëkk ki day juge ba la Samba Sall waaw ñaareel ba ministre de la justice ñetteel ba président de la république moom Macky Sall maa la ko wax te yow Sénégal nag maanaam daa soxla ay ndaw yu mel ni kon Guy Marius Sagna rawatina nag kon yow ci jamono joo xam ne bëgg-bëgg nguuru Macky Sall gi le nekkul dara lu dul sénégalais ci boppam laa lay wax nii daal di fay yorin gu bon goo xam kon maanaam moom moom la ñu yoree suñu alal ci lée du ñu ko nangu yow jàpp ñu dëgg yëpp daal koy yokk waaw waaw Fadel Barro day ci yéene kaay gi waaw nee ñi nga xam ne nag maanaam dañoo mënul a ñëw ca marche boobu ñi am xonq rek na mi xonq cor na dëkk bi xonq cor taxi yee kalandoo yee yeneen yi waaw na lépp xonq rek te mbiibal leen klaxonné leen pi pom pim dina mel ni tulleeg malle le quotidien yéene kaay ne marche boobu nga xam ne kon université Cheikh Anta Diop Ndakaaru wutali Medina waaw waa ñoo lànk day dañoo bëgg a orienté étudiants yi ngir ñu fekk si leen enquête yéene kaay ne coowal Guy Marius Sagna googe waaw avocat mi day ñoom maître Moussa Sarr daal dina ñuy déposé waat nag waaye naka ni ko di liberté provisoire ci jamono joo xam ne ñiy xeex lépp lu jëm ci wàllum ak ak yelleefu doomu aadama droit de l'hommiste waaw la ñu bëgg daal mooy internationaliser xeex bi yóbbu ko ci lan la wax ci coowal Guy Marius Sagna gi waaw Kor Marème Faye day nee xam nga sooni da ngay marche place de l'indépendance wala ca kanamu palais bi de la république waaw yoo xam ne jàmm taxulaa jugati de Macky Sall wax lii waaw yéeni kaa ngi ne moom Macky Sall tamit daal dinañ koy natal day yore nam gi ci wàllum politique ak wàllum koom-koomal dundinu askan wi du social en tout cas daal ay naataangoom xamal nañ ko ne ko ni ngay doxalee war xoolaat mais bi waaw jàpp nañ ne Sénégal day war naa ay jéego nag rawatina nag li xale taalibe di dund tere yi nga xam ne tam ñu ngi koy tere nga xam ne kon maanaam saay boo xëye ñuy day nar naa sax saf ndaxte nag waa ñoo lànk day lëkkaloo ak étudiants yi déet di waaye lëkkaloo société civile ba waaw te waa Benno Bokk Yaakaar tam nee nañ danañu organiser contre marche nañu ñëw laas de doxu ñaxtu boobu ngir courant bi nga xam ne ko nañu ko yokk waaye itam génnee Guy Marius Sagna ci kaso bi waaw ñoo lànk day bi moom ko préfet bi autorisé na ko jox na leen digal waaw coow kay mooy ndax danañu am ay nit caat bu yaanaa maar ne nañ leen génnee Guy Marius Diop di amaat ci Sénégal mar di la waaw réew mi quotidien yow xoolal moo autoroute à péage bi patronat bi day la ñuy sàkk mooy négocier waat contrat bi atuba wax parce nguuru Sénégal gi ba fii ñuy wax fi sin dotagu ko la wax mar di Italie Mbagnick Diop ak ñamoo àndal ne waaw parce amul kenn ku bokk ci privé bi ku am un pour cent ci contrat la wax sur Sénégal ci boppam moo bëri ñun dóol téeméer boo jël ñeen fukk ak juróom benn yu total juróom ñaar 46,7 Sénégal bokk na ci ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ñàkk allahu akbar la ilaha illallah l'observateur ne programme alimentaire mondial day génnee na ay chiffre am de Sénégal xiif yaa ngi fi de lu tolloo ñeen fukki junni yu tëgas laf gobar jaas la ñuy dundee lu ñu togg añdi bëcca reer allahu akbar lu ëpp téeméeri junni ci ay élèves yoo xam ne day soxla nañu ndimbal de alaaji Malick Gakou day ci exclusive yéene kaay waaw nee na Sénégal ci boppam réew mi moo dabi ci coonoo toroxtaange goo xam ne kon maara day daal di souffrance ñu dañoo sonn termine yéene kaay ne Cour des comptes day dana joxe ay rapport yu bëree bëri tey jile Cour des comptes googu moo war parce que rapport u inspection générale ci lu jëm nag ci wàllum caisse d'avance ci mairie bu Ndakaaru Ndiaye Gueye nga xam ni moo tax ba ñu tëj Khalifa Babacar Sall waaw dañu koo taf tafee mbiliñ mbac rapport bu ñu génnee ko laa wax taf taf tey ci àjjuma ji day rapport yi nga xam ne moom la Cour des di génnee ni lée rapport yoo xam ni ba léegi ñu ngi nelaw waa léegi loolu moom lan lay tekkeeti ak ban njëriñ la amati te xam nga ñi fi nekk naan dollars lu maanaam lu ëpp ñetti téeméer ci ay milliards la ñuy jox Sénégal mu dugal ko ci wàllum énergie gi lée ci teewaayu Mohamed Boun Abdallah Dionne la woon Matar Cissé ak Amadou Hott ministre économie waa suñu ministre économie lée lan moo tax Macky Sall yónni wu ko France direct news ne ña ca délégation ba dee waaye Amadou Ba ministre affaires étrangères gannaaw ba mu gisee naataangoom gu France di Jean-Yves Le Drian waaw daal dinay bétoo tamit noonu ak marché yi nga xam ne maanaam waa Turquie ñi ngi koy gañee moo jaaxal ñëpp li jaaxal nit ñi kay mooy enquête yéene kaay nee na Grimaldi day nee dina jàppale Sénégal ci xeexum Sinébar Le Quotidien yéene kaay ne drogue bi nga xam ne maanaam fekk nañ ko seen bato ba day moom Grimaldi daal dinay weeti nag li waa douane wax eh eh, eh. waaw parce que nee ñoom ñay liggéeyee ca ñoom ñoo gis saakuy ginnaaw ga la yi bi ni directeur général lu douane les de Amadou Makhtar Mbow waa ARMP day daal dina ñuy faram-fàccee nag milliards yi nañ ko caxa-caxate grand place de directeur général u APS day tuumaal nañ ko de ne Thierno Ibrahima Fall daa fitnaal ñaar ñu fay liggéey aa fit naka kee nga Macky 2012 ubil évidence Sénégal nañu maître Moussa Diop day ma ko jiite woon suspendre nañ ko aa ñoom aji mbergaan kadu day ak ñoom Mohamed Diagne ñoo fa jaar box sobi li ne Macky 2012 day Macky day Mamadou Moustapha Diagne ñoom la rek l'observateur ne dee yu bëri yi nga xam ne maanaam nit ñi mënuñu koo fàtte day enquête yu ci bëree bëri daanaka mujjul fenn papaay Aminata Diouf mañ fi rayoon ca wakaam day nee na ñun enquêteurs yi booba lañ leen gëj a dégg libération yi ne kaay ne coowal njooba sekk bi nga xam ne kon nañ koo rey ci sib si la day waaw jàppaan nañ ca ñeent laa la wax ki nga xam ne moo mujjee woote ca téléphone ba day jàpp nañ ko <laughs> te dañoo mën a rey rek waaye nag ak luñ mën a rey mën a rey mën a rey mën a rey mën a rey buñ fàtte ne suul gaz du ko tere xeeñ troisième mandat dañ ko fi tere te Guy Marius Sagna yaa daa war a génn boo paree ma